ku bëgg ñu saraxal ko muxtaarul adab bu gisee muntahal arab dana gis ne am na doyab càkkutéefam loolu lañ tuddee sharxa bi mu di sharxa boo xam ne eh, lañ ci jublu rek mooy gën yaatal loxaab ki nga xam ni nii dégg nga muy jàng loxa ñu defal ko muqaddima ni mu ne muqaddimatun lii mooy tàmbali bi ay hadihi muqaddimatun ñu dagg mubtadaa ga ba fa xabar mu commencé bismillah rahmaani rahim yi ni téere yëpp di commencé bismillah maa ngi commencé jàng si tur yàlla rahmaani yàlla mi yërëm min def yëpp ci àdduna رحيم يا الله ميرم جام يغصب تشال الأخرى من الحمد تشانت لله يلا يا رب العالمين كيبر من ديفي كما سينا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحيون سلفنا برمام صلو بنكو كما سيوش بسم الله الرحمن الرحيم لفين ياك بارك بلان رواية من بنكو كما سيوش الحمد لله رب العالمين نفسر حبي كما سينا تنعرف لي مقدم أكثر حبي ندير <coughs> مام بركه borom xam-xam yi ne bisimilah rahmaani rahiim nga war a jiital teg ci alhamdulilah mu julli ci yonent bi nga xam ne mooy miftaaxu rahmati ku am may ci yàlla moom nga ko jëlee moo tax gannaaw mu commencé ci tur yàlla dafa def cee teg julli ci yonent bi mu ne wasalaatu xawal wasalaam ak mucc ala ashrafil mursalina yàlla nekk ci ku gën a tedd ci ñu yónni yi mboolem ñu yónni ku ci gën a tedd yàlla yàlla jox ko xewal ak mucc kooku nag sayidina mooy suñu sang wa xabibina mooy suñu soppe muhammadin muhammad uswatil waasilina mooy royukaay ñi yàgg ci yàlla képp ku yàgg ci yàlla sa royukaay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi lay doon ku yàggul ci yàlla nag naaru ci la roy keneen waaye ku jokkoo ak yàlla moom kooku yonent rek lay roy wa ala alihi ak ñoñam wa sahbi ak ay sahabaam yal na yàlla jox xewal ak mucc ñooñ yonent bi mooy ku ko gëm te bokk ci doon Haashim yi yal ak mucc saxaba yonent bi mooy ku dajeeg moom te gëm ko di la gisoo ko assaadati saxaba yi nga xam ne ay sang lañ almayaamini ñuñ barkeel lañ saxaba yi nga xam ne ay sang saxaaba yi nga xam ne ay barke lañ ñuñ barkeel lañ bokk na ci barkeeb saxaaba yi xadis bu wér yonentu ne mbooloo danañ xare ji buñ laajee ne ndax am na kenn ci saxaaba yonentu bu nekk seen biir buñ ne waaw rek mu ne yàlla may leen ndam kon ñoom ndekk mbooloo muy xare ñu nekk ci biir mbooloo ma rek dana tax yàlla barkeel mbooloo moom bañ am ndam moo tax ma ne almayamin ñuñ barkeel la ñoom saxaaba yooyu ba yonent di wan ne teew gi ñu ci xare rek mën naa tax jullit ñi gañ a xare boobu wa man tabi'ahum ak leen topp bi ihsaanin ci rafetal min al xurri ci sang yi al muhajjalina ña dañ weexal seen cër maanaam ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi lañ ci képp ku topp saxaaba yi ci xeetu yonent ku topp saxaaba yi ci jëf ju rafet ci xeetu yonent rek yàlla na yàlla jox ko xéwal ak mucc yonentu xeetam moom moo leen tuddee xurrun muhajjalin xurru ci cosaan mooy fas yi nga xam ne jëmu axar la afalu faala faalun mooy fas yi nga xam ne seen kanam yi dafa weex jëbi muhajjal nag mooy yi nga xam ne tànk gannaaw yi ca kaw dafa am lu weex fas yi daan rafet waaye xeetu yonentu noonu leen tuddee ndax ñoom bu ñuy ñëw yomal xiyaamat di dekki yonent ne ni ngeen a xàmmee mooy ñoom xurul muhajjaliin lañ seen kanam ya dafay weex ndax raxas giñ ko daan raxas ba ñuy jàpp waaye seen cër yi dafay weex ndax raxas giñ ko daan raxas ba ñuy jàpp mboolem cër yi nga xam ne booy jàpp da nga koy raxas booy dekk yomal xiyaamat dafay weex loola tax ñu tuddee ñi al xurru al muhajjaliin al xurru mooy ñu weex kanam al muhajjaliin mooy ñu weex cër kon li mu bëgg a wax rek mooy képp ku topp saxaaba yi ci rafetal ci ñi nga xam ne seen kanam yi dafay weex seen cër yi weex maanaam tañ bokk ci xeetu yonent bi yàlla na yàlla jox leen xew rek mucc <clears throat> wala bëggoo baadu gannaaw ma sant yàlla julli ci yonent mu di wax lan moo waral sarxa bi mu ne falamaa raaytu bu ma gisee julla la lugati al ñu ëpp ci sàkkukatu langu arab yi maanaam ñu ëpp ci ñuy jàng arab fii Sénégal yi naa si suñ Sénégal gile yafutuhum mu di leen rek ci mustaqaatun xaritu baat yoo xam ne xad arafu xam nañ usulaha seeni cosaan aw wala mu rëcc leen usulun ay cosaani baat yoo xam ne xad darasu jàng nañ baxda mustaqaatiha lenn ci xaritam fil kutubi lugawiya ci téere luga yi mu ne li waral sharxa bi mooy gis bi ma gis ne ñu ëpp ci ñuy jàng luxatul arabiya ci Sénégal léegi-léegi ñu xam cosaana baat waaye baat yañ xottee ci cosaan yooyu def leen raw maanaam mënuñoo xam ne alhamdu mooy firi sant waaye mënuñoo wax sant na mënuñoo wax dana sant mënuñoo wax aji sant mënuñoo wax luñ sant ndax مستقاد يوي داف لين رج من نيو قم رك بارو الحمد واي بوني حميد مرير لين بوني حامد مرير لين بوني محمود مرير لين ولا بوين كو قميت من نكو تج من نيو حميدة ndax xamul baat bi faanlu ba faan la ولا ولا faan la wala faan la dëgg la loolu ku jàng sarfu mu xettali la ci yu bari ci yu mel noonu waaye léeg-léeg nit jàng sarfu ba pare gis baat boo xam ne xam na masdar moom muy cosaan la waaye nag mënul indi fi'il ba ndax sarfu dafa bëri yoo xam ne dafa jàdd xiyaas kon gis gi ma gis ñu ëpp ci ñooñ Sénégal ñuy jàng langue arabe léeg ñu xam baat yu ñu xotti wala boog ñu xam cosaani baat maanaam masdar yi waaye nag mën ñu xotti ci masdar boobu fi'lu wala ñu xam dégg nga mustaqaat maanaam baat yoo xam ne dañ ko xotti te xamuñ cosaan la léegi mën ngaa xam rek alima kooku mustaq la waaye xamoo fuñ ko xotti dégg wala boo nga xam baat te xamoo musanna ba wala xamoo jamoo ba loolu dafa bari ci ñuy jàng langue arab léeg-léeg daal danga jàng baat boo xam ni jàng nga ko gisaat ñu xotti ci fe euh, beneen baat ci beneen téere doo ko mën a firi lu tax mënoo ko firi ndax bañ la jàngalee baat ba ca téere loxo ba jàngalaale wuñ la yenn ci ñu xottee ci baat boobu moo tax ba nga ko gisee mënoo ko firi wala léeg-léeg nga jàng baat boo xam ne ni xotti nañ ko ni ki kaatib aji bind xam nga ne kaatib mooy firi aji bind waaye nag jàngaluñ la cosaan xamoo cosaan la xamoo kaatib masteram loolu moo tax ba ma gisee loolu arat bëgg naa an adama teg lahum ñeel ñooñu di jàng arab hada sharha bi la sarha ba ma gisee ne daal danañu jàng lu bari ci loxa waaye ñu solal baat bi beneen yëre rek mu réer leen loolu waral ma indi sarxa bi fexe baat bi buñ ko jàngee ma leen dégg nga musanna ba ñu xamaale ko indi leen jamu ba ñu xamaale ko indi leen fexlu ba bu fekkee am na fexlu wax baat bi masdar laam lan la amru laam lu mu doon fexlu boobu it ñu indi maadi beeg mu daari boog amru bi indi ismu faayil rek ismu mafuul léegi-léegi ñu beneen bëndi indi ismu faayil fekk indi nañ bu mel ni moom te ñaari baat ñu ko même tëggin nga xam ne baat bii ismu faayilam rek mooy mooy ismu faayilu beneen baat ba maanaam dañoo indi sarxa bi ngir yaatal yaatal kii jàng luxa mu mën a dégg luxa bu baax nga xam ne bu jàngee benn téere da ci xamaari baat yu bare bare bare laa bi itnaabin duñ ko def ci guddal mu millin buy tayallo wala bi ijaazin duñ ko gàttal mu xillin buy xëtt maanaaya sarxa bi ñu tegal jàngikati arab yi ngir yaatal seen xam-xam ci baat yañ jàng du gudd ba tayalloo nit waaye du gàtt ba li mu waroon a andi wut ko li ëpp solo laal dana ko indi lu tax sax téere bi jug wala boog lu tax saxa bi jug tasrifan ngir soppi lahum ñeel leen leen mufradaati ñeel baat ya alwaarida yee rot fil kitaabi ci téere bi mooy muxtaarul adab fii ashaaril arab téere bi ñuy wax muxtaarul adab fii ashaaril arab baat yam andi ci téere bi waykat yi baat yi ñu andi mooy mufradaat yi mufradatun mooy benn baat mufradaat mooy ay baat kon baat par baat lañu ñuy sarful leen ko sarful leen ko mooy soppil leen ko bu dee ismu ñu andi la musanna bi ak jamo bi bu dee fenlu la ñu indi la maadeeg mudaaru bi ak amru bi andi la ismu faayil bi ak mafon bi dégg nga ak yeneen yi ci aju fatxan ngir ubbi lahum ñeen leen subb leen ay yoon yu mel ni bunt minal luxati ci langue arab li tax ñu dee ni sarful baat yi ñëw ci muxtaarul adab ngir ubbi leen ay yoon ci luxa maanaam seen xam-xam ci baat yi gën a yaatu ndax baat buñ la ko joxee indil la yeneen yoo xam ne ni buñ la ko andilu toon mën nga ko bañ a xam dina gën a yaatal sa xam-xam ci wàllu luxa wa tanbiyan ak yee lahum ñeel leen li usuli ci yi ñeel cosaani baat yi maanaam boo gisee baat ñu wax la fu mu jógee ndax daanaka téere luxa yi indi nañ baat yëpp baat bu nekk nag boo xamee yem am ak rapport fa mu fañ ko xottee ak ya jógee ci moom daanaka mën ngaa wax ne yow lu lay réer ci luxa dootu bëreeti moo tax ma ne wa dañ koo teg ngir yee lahum ñeen leen li usulil kalimaat yi ñeen cosaani baat yi maanaam ñu jàngal la cosaani baat yi wan la ko ba nga gis ko aw baadi mustaqaatiha wala ñu wan la lenn ci xottee ci cosaan yooyu dañoo teg téere bi wala sarxa ngir boo gisee baat boo xam ne dañ koo xottee ci cosaan ñu wan la fan lañ ko jëlee lan mooy cosaan yi wala boo gisee cosaan ñu wan la fuñ ko xottee loolu moo tax a jug sharxa bi wa rubbama unabbihu léegi-léegi ma yeete taaratan léegi-léegi wa rubbama unabbihu bëri na ba ma yeete yeete mooy wan la taaratan léegi-léegi ala baadil kalimaati lenn ci baat yi zaati silatin yu am rapport ak baat bi nga jàng maanaam léeg-léeg ñu jàngal la benn baat indil la même baat beneen baat boo xam ne mook baat boobu ñoo bokki xaraf te bokkuñ maanaa loolu mooy léegi-léegi moo won la baat yi nga xam ne dafa nekk zaata si la dafa am rapport ak baat bi nga jàng am léegi la ñu jàngal la ab baat leeralal la baat yi am ñu jugee ci moom ak moom yam jugee waaye ba pare andil yeneen baat yoo xam ne ñoo baat bi nga jàng ñoo bokk xaraf waaye bokkuñ maana loolu mooy war bu ma u nabbiwu léeg-léeg ma yeete taaratan war bu ma u nabbiwu bëri na lu ma yeete taaratan léeg-léeg ala baadi kalimaati ci lenn baat yi saa zaati silatin yu am rapport ak baat bi nga jàng loolu lépp dañ koy def taw si an ngir yaatal li saqafaatim ñeel seen culture al lughawiyya bi ka jug langue arab dañoo bëgg culture jàngkat yi lugha yi ci arab gën a yaatu li ma alim naa ngir luñ xam ñun ñëpp min annahu ci ne li am ba am ruba jaahilin bëri na ku réere kalimatan ak baat afatuhu gàkk-gàkkam aljahlu mooy réere bi fanni sarfi ci fan fannab sarfu ñun ñëpp xam nañ ne léegi-léegi nit réere baat te dara yóbbe wut ko mu réere baat boobu lu mooy ñàkk xam sarf su xamoon sarf rek dana xam ne baat bi dañ koo tëgg tëgginu sàngam ngir joxe ci maanaa sàngam bu ko defee nag ndem ñëpp mënuñoo xóotu ci sarfu ba baat bu gis rek man ko soppi wala sarfu dafa am ay jedd xiyaas yu bëri ñu fexe ko rek ca ba ngay jàng luuxa sarful la ko mu gën laa jege kama qaala kom nu wax ibnu malik ibnu malik fii laamiyati ca laamiyam ba muy laamiyatu afaal daf ne fal fi'lu man yuxkim tasarrufahu rufa de ko def rufahu yahuz min al lugati wa subula ibnu Malik dafa ne fal fi'lu fi'lu man yuxkim ku xereñe maanaam ku man tasarrufahu sarfu ko ku mën a soppi fi'lu kooku yaxus dana làq min al ci langue arab al abwaaba ay bunt wa subula ak yoon kooku jekku na arab am na ci bunt yu bari lu mu bëgg a wax dana ko mën a wax dina am yoon yu bari yoo xam ne bu amee baat bu ko neexee mu tëgg ko ba mel ni wurus loolu nag mën a sarfu moo ko indi ndem du ñëpp ñoo mën loolu ci bañuy jàng luxa ñu yaatalal la rek ci baat yi ngay jàng su ko defee boo takkee loolu amaana dina la dimbale ma ne wa kam kuntu bëri na ba ma nekkee atama naa dimbi bët maanaam dañuy wax lu waral lu waral sarxa yàgg naa mbébét an ashraxa ma saraxa jamial kutubil luxawiyya mboolem téere luxa yi المتداولة يهون ديرو بين أيدي طلاب العلمي كي ديجنت لخي سكت خم خمي في السنغال في السنغال مام تيري هي جانغ تي والو لوكو تي ريومي يغنا توك ديمبي بيت بن بو نيك ما شرحكو كوم ني مو وخ شرحكو مو لين موي بات بيم اندي مو وخ لا بات بوبو لي مي فري اندي لا جامو با بريم مصدر لا مو وخ لا مصدر بن فعل لا indi lammaa déeg mu daaro boog amru ba ba indiwaat masdar bi nga xam ne bi nga jàngoon kan moo nekk nii su ko defee indi la ismu faayil ba léeg-léegi ismu faayil ñu indi jamu ba indi la baat yi nga xam ne ñoo baat boobu ñoo bokk même xaraf te bokkuñu maanaa dégg nga loolu yàgg naa toog di mbébét def ko mboolem téere loxo yi ñuy jàng mu di muxtaarul adab mu di daaliya mu di maqamatul xariri mu di chanrawu jahiliya mu di yim nu dureydu waaye intimadan mooy sukkandiku nag alal maajimi luxawiya ci dictionnaire luxa yi sarxa boobu damay dellu rek ci dictionnaire yi baat bu nekk rek ma dem xool dictionnaire yi ko sarxa ci laay jël daal di ko andi ci biir sarxa bi jegee lal la ko duma di loo xam ni rek man maa ko xalaatee noonu waaye baat bu nekk bu ma ne lii mooy jamoo bi rek dafa dellu dama ko jëlee ci dictionnaire lii mooy mufrad bi masdar bi nii la fi'l bi nii la kalimaat saadati la yëpp ci dictionnaire yi laa koy jëlee ndax loolu mooy cosaan ci langue arab si yema mu'jamul maani rawatina mu'jamul maani mooy dictionnaire bi nga xam ne ci laay gën a sukkandiku loolu laa bëggoon dellu ci dictionnaire yi rawatina mu'jamul maani sarxa mboolem téere luga yi waaye fa yàqu mu gàllankoor ma diqul waxti ñàkk waxtu waxdamul furas yi ak ñàkk ay occasion jëmu fursatun ñàkk waxtu wu xat ak ñàkk temps boo xam ne dinaa mën a concentré wu ba delluwaat ci téere luxa yi ci dictionnaire yi ba baat yi ma gis ci téere luxa yëpp ma jegeelal ko nit ki ci maanaa jegeelal ko ci musanna ci jamu ci andi fin lu bëgg yooyu ñàkk waxtu teen maa mën a def loolu te ko amul waxtu nag doo mën a def dara ilaa antalaa ba feeñ ma nekk ci ñàkk waxtu googu ak bàyyi loolu bëgg naa ko waaye mënuma ko def ilaa antalaa ba mu feeñ fii ufuqi sama il majdi ci goxi asamaan saa moom teraanga la kawaakibu tullaabin ay taalibe yu mel ni biddiw wala ay sàkkat xam-xam yu mel ni biddiw yoo xam ni toujours yi dañuy xeebloo asumuusa jant yi nuuran ci leer wa daara dañuy xeebloo jamono himmatan ci yitte talabat sàkku na moom min ni ci man an uallimu ma jangal len alkitaaba tere bi ñu jang muy muxtaaru adab man ci ñak waxtu munu ma sharha téere loxo yooyu mënuma ko def sa ben tere far da ñak waxtu ak ñak occasion bo ma gis denga ay sakku sàkkukatu xam-xam yo xamne ne may na len leeri xam-xam ak leeri gem yalla ak leeri njub yoo xam ne nii mën naa wax ne dañoo mel ni ay biddiw ngir leer gi nekk ci ñoom waaye ma gis ci ñoom yitte yoo xam ne xeebloo na sax ak jamono ndax am yitte gi ñu am yitte ci sàkku xam-xam sàkkote xam-xam yooyu nag ma niruleeg biddiw moo tax ma ne dañoo feeñ ci asamaanu teraanga maanaam teraanga lañ làmboo waaye teraanga gu kawe ba mel ni asamaan maanaam dem naa rekk ba gis ay jàngkat yoo xam ne nii seen yitte doy na ma seen leeri xam-xam ak seen leeri njub doy na ma ma gis ci ñoom mbaax ak teraanga ñooñu ñoo sàkku ci man ne naa leen jàngal téere bi faaratu ma junj lahum ñee leen bi haza ra'yi ci biir xalaat ma ne leen est-ce que duma sharha muxtaaru adab waxuma leen sax est ce que du ma sharha mboolem téere luxa yi muxtaar adab laa leen proposé ndax moom lañ ma sant ma jàngaleen ko ma junji leen xalaat bi nga xam ne yàgg naa ko xalaat yàgg ko mbébét fastaxsanuhu ñu rafetlu ko wajaduni ñu fekk ma munshida dallatihim may laajte lañ réerle ba ma leen waxee loolu dafa mel ne ñoom dañoo amoon gëlëm gu leen réer man may laajte ne ku moom gëlëm gi maanaam ma gis ne ñoom kat ndeke ku leen saraxal leen muxtaarul ñu jàng ko mokkal nañ ko mokkal ko bëgg nañ ko loolu lañ doon sàkku daal ma ne leen man loolu laa bëgg def dañ ko rafetlu ba mel ni loolu guñ amoon la mu réer man ma ñëw ne leen ku moom gëlëm ki ko su ko defee li ma bëgg wax foofu gis naa ay jàngkat yoo xam ne seen leeri maarifa xam-xam doy na ma seen yitte doy na ma ñu sàkku ma jàngal leen muxtaarul adab sa ma gant ma jàngal leen ko waaye ci biir njàngale mi laa junju xalaat bi mooy sharxa ko ñu rafetlu ko gis ne loolu lañ doon sàkku su ma kaano topp ñu nekk ñoom jàngkat yooyu awwala man wadaw di ñuy njëkk teg aw iyatun seen ndab ya mooy seen bool ya ak taaxira yu laab yi li istisqa yi pour nàndulu su ko defee nag ñoom ñoo njëkk a teg seen ndab pour nàndulu maanaam ñoo njëkk jàng saxaab yi ci man dégg nga fasammat ko nag ba ma gisee wax dëgg yàlla ne am na ñu ko bëgg jàng te man bëggoon naa ko waaye dañuy wax ne ku bëgg fu fanaan ak ku bëgg ku ko wettali tëjal bunt bi di doon boole ku bëgg a firim téere ak ku bëgg nga firil ko ko ñaar ñoom dinañu naan maanaam loo xam ne bu nit ki ñëwee nga def ko bu ñëwul nga def ko bu ñëwee ne la kaay defal ma ko danga ci gën a sawar noonu la noonu la deme loo xam ne bu nit ki nit ki ñëwee nga def ko bu nit ki ñëwul nga def ko bu dee nit ki ne kaay defal moo ko dañ ci gën a sawar sharxa téere bi lu mu bëggoon la ñàkk temps moo tere woon ma def ko ma gis ñu ma ko sant ah su boobaa foo ma góorgóorlu moo tax ma ne fa samatu ma wak caqal jiddi dégg nga sama peeru peerab góorgóorlu xam nga góorgóorlu amul peer jidd dañ ko jàng fii léegi waaye góorgóorlu gi laa niru léeg tànk tànk nag xam nga dangay am mbubb euh, borom da nga koy solal tubéy waaye booy def lu am solo da wax sa tànk yi maanaam sa tubéy bi booy def lu am solo da ngay wax sa tubéyu tànk ñu xam ne caaxaanoo ma ne nag ba ma gisee ne bëgg nañ jàng taataan pour jéem a xam sarxa boobu ci laa góorgóorlu nag loolu mooy fa samartu ma wax saaqal jiddi peerab góorgóorlu maanaam ma wax sama tànk maanaam ci laa góorgóorlu wa waqumtu ma jug nag maqaama raadi comme waqumtu ma taxaw maqaama raadi comme taxawaayu raadu raadu mooy malaaka mi sàmm niir yi malaaka mi nga xam ne moom la yàlla dénk xiin wi nga xam ne moo koy xommat fu fu mu bëgg mu fu yàlla bëgg mu taw mu wàcce ko fa ma ne ci laa taxaw comme taxawaayu raadu moomu us ji may màng maanaam may xommat saxaabal majdi niir yaa moom teraanga la maanaam sara bi rek laa laa firee ay niiri teraanga ndax sarax bi lépp ci xam-xam la te xam-xam dara suufewut bu ma gisee ne daal ñoom taxaw nañ pour jàng ci laa góorgóorlu taxaw comme taxawaayu raadu di hommat niiri teraanga te mooy xam-xam bii rek li ahlil ilmi jëmale ko ci ñooñ xam-xam warus ji ak njub mubtada an maa ji commencé bismillahi ci tur yàlla almajidi bu tedd bi bi hada sharxi ci bi la sarxa bi am njëriñ musammayan ma tuddee bi muntahal arab في شرح مختار الأدب منتهى العرب mooy doon si waay càkkutéef في شرح مختار الأدب ci شرح مختار الأدب هذا لي واستعين maa ngi dimbali ko billahi ci yàlla watawakkalu maa ngi wakkilu alayhi ci moom wa unibu te maa ngi dellu ilayhi jëm ci moom lii mooy li tax ñu defar sharxa bi lii it mooy li tax ñu sawar ci mooy gis ñu ko bëgg a jàng dégg nga su boobaa ñàkk temps gi dafay mujj jeex su ko defee ci yàlla la ñuy dimbali ko yàlla it la ñuy wakkilu te ci moom it la ñuy dellu wala xawla déet pexe ba mën a def dara wala quwwata déet kattan ba mën a sottil dara illa billahi lu mooy ci yàlla al alima ji kawe al azima ji màgg